الأسرار ميمي كنا في الأنوار وابلي اليقين والإرفان وشوق والغفران والرضوان ولا سقامة على الإبادة وكسر والحيانة والصادة واديا أمة خير المرسلين مفرجا عنهم جميعا يا غري وارحم وبارك سم bato bi mi ngi tudd ville de Pernambouc ay brésilien ñoo ko moom marine marchande ñoo ko moom ki ko doon dawal mi ngi tudd Roux bato bi ñu ngi ko liggéey 1882 mi ngi guddee guddaay bi 94 la yaatuwaay bi 11

yalla dagol na bato bi delu ci Serigne Touba ñu wax wilde Mazio Roux moom moo ko dawal. ndax booba mi ngi melni tata yi léeg-léeg benn tata pan ñu jël benen chauffeur jox ko benen bokkut ak bam waron waroon tax Roux bind ci serigne Touba lo xamantene ni archive ngi rek serigne Jili ñi ngi biir keur serigne abdoulat mom serigne Cheikh Gaynde Fatma di waxtane magal gi. ne suñuy archive war nañu koo joxaat parce que entre Conakry ba Gabon bu dul lu sëñ tubaab bind ñu dégg ko ci sëñ ma Lamine Diop na tubaab yi dañoo denc archive yëpp ndax lan kenn du wane sa defet mu daal sëñ daam bi may julli ci géej gi de li ko waral ñoom bi gaal gi dawee ba séenatunu ndakaaru ndekete ñi ngi taxaw ci pexe ma bañ a julli moo tax ñu tere ma julli seen biir gaal googu te mbaa xam nga ni bu faatoon waxtu du wàññi ci màggal gi dara du tee Serigne Saliou di Serigne Saliou waaye daa toog ba yàgg daal ne ko Abdourahmane wàcc googu ma ci géej gi ana lu ngeen ko ji mu ne ko Mbàkke xanaa wilaaye mu ne ko mukk Abdourahmane jom ak ngëm biñ ko teree gaal gi te sëñ Tuubaa boo ko bëggee tere julli xam nga loo ko jëkk a tere jàpp sëñ Musaa nee na mësta tiim mësta dox ni maa fu mësa romb ñëpp xam ni moom mu daldi sànni der bi ci géej gi tubaab bi ne sañu koo fekki mu jàpp ba noppi jàpp bi sax jéem nañ koo gàllankoor daa jàpp ba noppi rek ndeysaan dal di taxaw waaw jigéen la njëkk a yebal ne ko laal ko mu ñëw ne ko noo tudd mu ne ko Ahmadou noo sant mu ne ko Mbàkke foo dëkk mu ne ko Touba. tay bi la limay netali tay bisu tay la bu fekkonté né julli juroom day xari ciogal ñaari rakay ndar ñoy ñoy xari jur ciogal gi bu doon julli juroom doomi adama la la wax ñaari rakay ndey ndar ñoy adama kaw gis nga bimu wacce ci geej gi suñ sambay neena gaal géej wàcc ba ci suuf mbaa géej gi jóg waaye moom du tëb te ca kaw la ne mi ngi mel ni yow mu ne ci étage bii soxla ci suuf tubaab yi bind nañ ci archive yi ne ñoom ne dégg nañ daal bi mu wàccee ci ndox mi dégg nañ benn baat boo xam ne dañ koo bind après lañ ko laaj olof yi mooy der bi bu la gaal gi raw der bi bu la gaal gi raw mu julli sëlmal yéeg ci géej gaal gi am na beneen pexe bu ñu def bu gën a garaaw xam nga ñoom dañoo bëgg mu faat waxtu boobu làbbe bi tudd Antoine Marie et Polycarpe moo dugg ci xërëm yi ne leen bu ngeen fexee ba mu faat waxtu lu ngeen ko jéemal mën naa sotti def leen lu naqari yàlla te yàlla bokk na ci faratay bis bi li ko gën a metti mooy doomu aadama bu faat wax ñu ne des na gee gee ñu ne comme wàcce nañ ko mu julli nan bàyyi ba guddi gi jot balaa gee di jot ñu wëndeel bato bi fay làmp yi du xam fu penku bi féete barke Seexul Xaddim def nañ ko fay làmp yi wëndeel gaal gi nee dañ ne kamaj lamp yi rek nee sang bu tedd ba ci medina sayidina Muhammad ne ko ahmadu munako labayka munako gañi julli ñëpp penku penku bi la ni dak munako wa munako yow penku be lay dak fo jublu rek ma warangi kaaba gi mu tollok yow señu Moussa ko wax na ko de ndol makka ko may dara jay sahaba khibla gu Bamba jublu muy kaaba rasaxtani hajja ilayya tayya wa sawra war jawara iya ne fu ngeen bëgg a yegg teg leen bët teg leen ku ragal du ànd ku tiit du ànd ku xamut du ànd ku lambatu du ànd ku sikk sàkk saalixu rek wasalaam